salaamaaleykum mbokk internet yi salaamaaleykum mbokk Sénégal ñu ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo tey ñu ngi fi arène nationale li ñuy fi indi leen rek la muy direction le 19 nga diggante ku nga xam ne ne qualifié Pape Ndoye ñoo war a bëree mois de mars la la le 19 mars mu combat bu nar neex fii ci arène nationale mais tey dafa am lu ñu fi indi dañoo boole ñaari xale ñaar ñi boole nag ñaar nañ loo xam ne dañoo yàgg a wërante dañoo yàgg a tëkkonte kenn ki am na lu mu dencal kenn kenn ki am na lu mu dencal keneen ki kenn ki si am na lu mu jugee fan yee nee digganteem ak Laurent muy Alliance Baldé kenn ki am na sumu jugee digganteem ak Léopold muy muy muy Bousse 2 dañ leen bàyyi ñu nuyoo maa ngi toog sama ginnaaw rek ma xool kan laay njëkk a jox micro bi mu nuyoo kan mooy mag ak kan mooy rakam maa leen siyaar Alliance Baldé bëgg naa. <laughs> waaw maa ngi lay siyaare di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba gannaaw bañ sante yàlla julli si yeneen bi sant suñu ñaari waajur mboole mi séq làmb yëpp di ñaan Sénégal yàlla na fi yàgg jàmm yàgg di ñaan ñi nga xam ne suñu borom jël na leen ci accident boobu nga xam ne am na yàlla na suñu borom xare leen àjjana yàlla na dee nekk na seen noflaay si barke Seydina Mohamed di ñaan li fi des yàlla si ci borom bi teg loxo di wax Sénégal yàlla na fi yàgg jàmm yàgg. jërëjëf comme nu mu ko waxee mënoon nañoo njëkkee foofu sax li nga xam ne moo xew ci réew mi di ñaanal ñi nga xam ne dañoo wàññeeku si accident boobu am. di ñaan suñu borom yeesal yërmande seen kaw ñi ci am blessé suñu borom wéral leen di wax ni yàlla na jàmm sax Sénégal oto yi ñuy def nànk rek di dal nànk comme que dëkk bi temps yi daa tàng di leen ñaanal daal suñu borom xaare leen àjjana firdawsi bu sëddoo maa lay nuyu. waaw maa lay fay bu baax a baax laat di nuyu ñëpp di nuyu sama coach Ngagne bu baax a baax mi ma àndal moo ma yàpp si otoom indi ma fii di nuyu booy ma àndal yëpp waa Kër Mbaye Fall yëpp xam nga di jaale Sénégal yëpp xam nga. si dëj bi nga xam ne moom moo am nga xam ne dëj Sénégal la quoi comprendre nga métti na trop nag mais nañ nangu nit yàlla moo ko tuddee noonu waaw tey wax chauffeur yi ñuy def naa rek noonu la demee nag. Boucher 2. waaw dugal ci Alliance Baldé. waaw kii dama toog benn jour gis ko muy nekk si internet bi di yàq lu ne sama mag Ketchup xam nga ndax bëgg bëgg nekk ak moo géet bëgg a xaritoog moom gis benn milliardaire rek ne dafa bëgg a xaritoog moom xamul ñaari nit nu ñuy àndee muy yàq nit ki lu ne loolu metti woon ma loolu ma nekk xale bu ndaw mu metti ma mënu ma koo faj ma ne kii fu ma jaar dinaa ko faj tant tant que mu dund mu ci kaw suuf dinaa faj loolu te dinaa ko faj loolu laa ñëw pour confirmer nii. loolu tax nga jël xale bi. loolu kese moo tax ma jël ko ba sama nekkul ne avant sama combat bii nii laa ko bëggoon a jël comprendre nga est mu ne du bëre ko am deux combats. comprendre nga mais maa moom ñoo waroon a bëre te dem jël Laurent Ndiago mi nga xam ne deux combats la loo war a bëreel daf ma xeeboon quoi mais tey fekk naa ko si ay tànkam te dinaa ko won ni yow xolo bu jour baa yow boo taxawee sax bu ma la namee reculel paa man yàlla bu ma jëriñoo. alliance Balde nga waxal de. tungu ne du teew ñuy notaal alliance. loo loolu tournel fii jàkkaarloo kaay. dégg nga sa waay li mu wax. maanaam nee na damaa bëgg a xaritoog moo moo tax ma yàq magam lu magam purux la du gërëm ñamu daaw. rakam taxaw nga wax lool déggoo lu ma la man yàlla moo bindee aw ma lu may wax di def nii. ma magam purux la du gërëm ñëw daaw maa ko waxoon maa ko waxaat aw ma si tànk ginnaaw kii man ak moom ay wax moo ñu boole. kii di mbër di champion def 3 combats 3 victoires nga ne ay waxaleen boole. maanaam alliance ku ko xam-xam ne bu arbitre soufflé amul ku muy xaar si àddunaam mos ngaa seetaan ma xaar kenn. yow de bu arbitre soufflé lampier tàkk. bu arbitre soufflé moom day génn saako yi. mais est que ñooñu ak kii bokk na. ay ñoo ngi fi bu arbitre soufflé moom day génn. loolu kay sa yaa ngi noonu yow li nga wax nii dina la coûter cher yaay dóore tey maa lay dóor yow nga ne sama mag puruux la du du gërëm ñamu daaw dina won ni senegal yëpp kooku mooy gor mooy garmi te si ay duma laa la koy wone nga xam loolu yow Alliance Baldé yow du ma la reculer dara te bu yeboo nga xool ma nag ngay ragal ragalu nii di sol ay kapis. xanaa du ragal kii. <laughs> man tapet laa na jël lépp ragal laa na jël lépp maanaam kuy seetaan làmp boo ko waxee Alliance ragal la day reetaan. daa lu ma waxoon moom lay xaat man seul may battre score bi woowu ma si kenn. yen ñaar la mu ngi nii damaa bëgg mu neex tàng yen ñaar la. <laughs> maanaam boo déggee mu naan ay maa koy duma maa koy def lii maanaam seeni i yu ñuy teg la maay duma alliance soo ko waxee si micro ni ñu dañ lay reetaan. surtout Serigne Saliou sol. ah moom nga sol barki Serigne Saliou Mbacke du ma reculer benn pas si digg géew bi si digg ñànkatang bi laa koy daanee te dama koy duma dama koy daan du ma teggi lu ma wax boo teg li nga wax. barki sëriñ Saliou loolu laa koy def. alliance booy baa ngi lay dépassé de waxal ak moom. <laughs> maanaam am na wax yoo xam ne boo ko waxee. si li nga jóge la. wax yoo xam ne bu ko waxee ay damay jàpp. déggoo lu ma la c'est moi qui kaaw man rek maa fi am kàddu dóor mu daanu. nee na ña nga daan xeexal boo ko teg new neex parce que nee na yow doo gaynde muus nga. moom moo ko wax mi ngi nii. maanaam la job lamb moo doy waar rek. mais booy du mu seen morom. wallaahi barke Serigne Saliou. luy wane ni doo seen morom. liy wane du seen morom man maa ko war a def. du ay wax damaa war a jëf. kii dama ko bu baax. kii kii damaa toog muy damaa yàgg toog di ko seeraan muy contact. Pakala Junior ñoom ñaar ñoo bokkoon écurie Pakala Junior ñoo dend kër kër Mbaye Fall. ma xam ko bu baax daan ko téyal saagam muy ñëw seen écurie di contact ak kii mënul am si moom rëpp. kii xam nga ndaanaan la de. Pakala Junior ndaanaan bu mag a. mii ndaanaan moom xam na Pakala. te man xam naa ko bu baax kii nekkul na moo may téye si yoon bii ma tegu nii kii si échelle bi la nii rek te bokk na si ñu si gën a néew kàttan si ñi may dajantel. damaa dégg sama buuse mu ni combat bi combat am la ndax parce que Alliance Baldé lu ne la koy yàq ci média yi lu ne la koy wax tey nga jël revanche bi pour bëreeg sa waay est-ce que loolu noonu tax nga jël ko tax nga jël combat bi est-ce ci yow. noonu tax ma jël combat bi laay confirmer. est-ce que loolu dina la arranger loolu. lu ma la wax maanaam làmb ji du am génn ay duggaat fi ñu taxaw arbitre fi mu soufflé foofu laa koy daanee. gis nga lim bëreeg Laurent. arbitre mu dox ci kawam de. Serigne du ma Laurent eh, man du ma Laurent. gars yi nee nañ bëgg a bëreeg Laurent nga jël alliance Baldé tamit. Laurent bàyyi naa bëreeg moom dootuma bëreeg moom man bàyyi naa bëreeg Laurent Ndiago du ma bëreeg moom maa ko wax fii mais dama damay won Sénégal ne luñ foog ni man du ma mbër laa leen di won ñaata mbër ngeen ma won yéen damay ñëw rek jël xaw ma leen xaw ma seen i mbokk. te digganteeg ceeb bi xam nga de baat tontu la. dama leen a jàpp daan leen kii tuuti na si daan ma laa la wax kii xam naa ko bu baax. booy bi xeeb na la de waxal ak booy bi na la de. waaw déggoo lu ma la wax damaa bëgg bu ngeen paree ngeen seeti buuse ngeen jox ko micro ngeen laaj ko ba xam bu ma daanee booy bi dina ñëw ñu bare eh, <laughs> Bousse booy effacé na la nag nga ni boo. damaa bëgg yéen wasaare ngeen seeti buuse jox mikoro nga laaj ko ba xam su ma daanee booy bi dina bëre parce que dégg naa démb ñu woo ko téléphone mu ne combat bi combat la su ma booy bi daanee am na leneen lu mu si teg jarul koy wax si micro nee na su booy bi daanul moom mu mais garaawul. parce que boo ko wax moom buuse. lan la wax. nee na bu ma wasaare. nee na su ma bi daanul moom mu xàcc. kon kon am na fu ñu teg combat bi. maanaam gis nga fa yàllay defaree daam lu ma la wax nit munu faa yegg bay yàq ñoom fi ñu teg kombaa bi loolu du làmb. man su làmb ñëwee loo ma jàpp jàpp jàpp li ma war a def dama koy def foo teg sa tànk boo ko sulee ma teg fa sama tànk yàlla may na ma loolu. xeex ak Boucher 2. maanaam man may bëre may xeex may daan incha allah ci kattanu yàlla di nuyu suma Mara suma xarit. dinañ ñëw si nuyoo sëñ Fallou Mara. dinañ ñëw si nuyoo bi nga ne yaay bëre yaay. sama papa Massila Diop man may xeex may bëre may daan. te li nga wax bu si dellu ginnaaw de da nga ne da nga xolo wóyu yaa ngi gëmloo Sénégalais yi ay Ketchup nii ay lamb ji daa am fu mu ko teg Ketchup tegu ko fenn fu dul rakam màgg na war ko mën a fajal problème am te da ko koy faj koy faj comprendre nga est-ce que ñun gëmuñu lu dul yàlla suñu borom yàlla lañ gëm luñ yàlla lañ lu ñëw yàlla lañ ko jox yaa ngi dégg est-ce que barki Serigne Saliou si kàttanu yàlla laa la wax dinaa fajal Ketchup li nga xam ne naqar gi nga xam ne yow wax nga ko te du nekkul si moom dinaa ko def loolu rek moo ma booleeg yow mais du yoon nga ragal booy bi de gis naa loolu <laughs> alliance daa ragal booy bi dalaa ñeme trop booy bi mu ngi wax rek. waaw man mun nga ma ñeme si mikoro non non mais tontal booy bi dégg nga lu mu wax. déggoo lu mu wax li mu buuse mer maa koy këccëb ay këccëb li mu meree maa koy fajal maanaam <laughs> le 18 mars soreetul lu lu ma la mun a wax mooy balaa nga doon xam ne booy du ma seen morom nga dekk jaxasoo micro laaj ko. foofu laa yem ba ci kanam. tontu laa ngi noonu du seen morom du seen morom direction le 18 mars la ak Yaram Art Production fii lay xewee arène nationale di nuyu DG Idi di nuyu ku ci mel ni Bakary maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di nuyu wasaare ku ci mel ni Khalil ne ci caméra bi mais alliance dégg wax nee na bi yéen day am fu ngeen ko teg ba tax ngeen jël combat bi combat bi nan ngeen koy waajee. waaw moom na dëgg fi mu dëgg rek nee a nee na ba xam sa mag. na ah, dëggal bu ngeen déglu bu ma daanee dafa bëgg a moom. waaw nee ko du yegg nag ndax fii nii barrage boo xam ne ku fi ñëw da da da ngay kalew dangay ngay réglé yam yaru te bu jour ba yow dinaa la yar. won na la xarewul won na la xale. du font moom ñëwal wax ak moom fontoo magu jàmbur. te man xale bu ndaw laa. te li nga ki sama mag bi nga dépassé dinaa la dinaa la la yow. <laughs> kii bu dee wooyee damay humilier ay ree damay jàpp quoi <laughs> koy man <laughs> Serigne Saliou man maa la bu at bi sifflé booy bi day daw maanaam eh. bu at bi sifflé billaahi day daw wax ji moo nekk rek kii ay loxoom dëgërul barki yàlla kii ay loxam dëgërul yow ñi lay dawal ñoo ko def de mais di nga xam ne sama kanam gii nii laa la wax jour ba jox naa la ko àddiye loo si mën defal. alliance nee na gaynde meer la fanaanoo de. gaynde mer la fanaanoo kii day sóob rek kii li muy wax gëmu ko barki Serigne Bamba Mbacke li muy wax gëmu ko ah. maanaam xam nga mu ngi wax damaa dépassé magam moom li mu def moo gën a doy waar. lan la def dafa def ci soxna Serigne mu jël vidéo vidéo ko wax lu ñaaw. kon xam nga li barke Serigne Saliou mu ngi nii bu ko wet bu fekkee li ma amul soxna Serigne kilifa gu mag mu vidéo ko di wax lu ñaaw du ma ko wax. donc ah, waxtaan leen fii yéen ñaar eh, waxtaan leen waxal kan la waxal kan la eh ban tudd ban soxna Serigne laa dépassé waxal. yow yow ni nga mel. def loolu buuse. yow affaire débat affaire téesante yii ah, yii xewul si làmb. ay affaire yii nii xewul si làmb nañ ñëw ñu ñu kii ko bu fi indi ay soxna sëriñ ak ay yooyu noonu ay diw damaa saaga yooyu noonu man du yooyu noonu man li li ma war a faj xam nga li nga ko wax xam nga li nga ko def yaa ngi dégg gis ka man loolu laa ñëw pour lijjanti ak yow te dinaa ko lijjanti ak yow. maanaam bu fekkee côté Moguet lay wax Moguet sama fereer la sama xarit la tey bu tax combat bi taxawee moom am na si part. xam nga moom waaw parce que magam daam am fu mu waxee. moom tamit daam fu mu waxee. magam xaritu Moget la de. Moget sama frère la man preuve laa lay wan biñ dégganteeg léegi matagul matagul deux heures de temps man preuve laa lay wan nekkuma fi di wax ay wax juy deñ de. moom Moget déggoo lu ma la wax dama lay génneel preuve laa la wax. Moget lay jàpp si làmb ji de. Moget maa ngi koy nuyu bu baax xolo mënoo ñoo jaxaseeg Moget ndax Moget Sénégal bu ko xamee. bay tax dégg waaye eh, Sénégal bu xamee Moget Ketchup moo tax. senegal bu xamee moo gën yow nga naan ma ay moo ñun ñun faalew ñu milliardaire ak ku yorul milliard yaa ngi dégg gis que ñun lu ñuy toppee nit mooy lu ñu nit won man xolo ku yor ñaar dërëm ak ku yor fukki dërëm laa yemale yaa ngi dégg gis que li ma war a lijjanti Ketchup maa moom ñoo bokk ndey ak baay bëgg na ma di ma defal lu ne amul dara nag. mais moo lu mu yor moo ngi koy séddoog nit ñi loolu moo tax ma bëgg a def li may def bu fi indi ay moogéet ak lii lañ sekk ak yii moogéet mosoo koo gis. nee na moogéet jàpp na mosoo koo gis wane na preuve de. si téléphone nga ko xamee. internet nga ko xamee wane na preuve de moogéet la doon waxal léegi avant muy. avant muy mën a neex da ngeen di juddoondoo nekkandoo. Ketchup li muy prouvé di ko wane si moom moogéet ñoom ñaar dañoo ànd fu ne dund lu ne dundoo ak moom dara affaire non bu ma tax Seo loolu baax na léegi kàddu gu mujj boo xam ne moom ngay tàggoo ak waaj bi nga xam ne moom ngeen di la le 18 mars. balaa may tàggoo dama koy wax mu xam moo gën sama frère la comme nee na ay moo gën xaalis nga koy toppee man du ma ne kenn yàlla nga lay nuyu te gisuma ko moo gën musuma may juróom barki Seydouna Mohamed. moo tax nga jël combat. musuma kaa woo ñaan ko juróom man taalibe Serigne Touba laa lu ma am man maa ko utal sama bopp lu ma am man maa ko ñaxal sama bopp soxla ma si amul kenn koo xam ne dinaa daw sa ginnaaw. maanaam lamb boo xam ne moom wax ju bëri rek la ci am wax ji lii la si am mais nag waaw yàlla mooy yor ndam yàlla na ma yàlla defal ndam bu sedd guy di woo suma xarit sëñ faalu Mara di woo sama papa Moussi la Diop di ko wax combat bi combaam la di woo saa borom Touba di sama benn kilifa bu nekk Touba du ma tudd turam di ko wax combat bi sa combat la. Ah. dañoo tëgg combat bu neex mooy dàq sax garaa combat parce que man damay diriger. man du ma mbër buy xaar wala may bëri cinq minutes wala ma fi yàggal arbitre yi di nuyu suma baay Cheikh bu ma àndal ak booy guy jaxasoo di ñaanal suñu waa écurie yëpp suñu borom defal leen jàmm muy Pikine waxi naan di ñaanal ngeer bu zab yàlla defal ko ndam bu sedd guy. jërëjëf waaw. waaw maa ngi nuyu ñu may ñu ma àndal ñëpp su ma fi waxee lenn loo xam dafa dépassé maa ngi jégalu ñëpp te xam ne sama yaram moo tàng yaramu xale la ko waa le sang qui kii yaa ma gën a xam ñi may ñaanal quoi ku si mel ni sëñ Seexuna borom kafaytan yi maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu saa Touba waa Touba yëpp ñi may ñaanal Touba sama mbokk yëpp di nuyu sama papa di nuyu sama yaay xam nga di nuyu samay mag Abdou Camara maa ngi koy nuyu sama di woo sama DG Babs di woo waa Kër Mbaye Fall yëpp ku si mel ni Moussa. Moussa Fall borom Seras maa ngi koy woo si combat bi bu baax a baax ku baax la di woo ñëpp daal di sant sama pression le 18 lay wax yaaram aar man moom chorégraphie bu ñu war a defaat biir arène nationale ba tax mbër yëpp di ko sàcc fu mu toll nii man moom dañoo war a fecc salsa xam nga lu ma la te du ma daanee kii ba pare salsa waa yaaram aar maa ngañ dañ ko war a fecc comprendre nga ah dal na de ngay bëri alliance Baldé naan da daan fecc déggoo lu la wax kee xam na ma bu baax du ma ànd ak sama coach ba pare di wax lu nekkul si man. teg waa Yaram Aar promoteur bi la ñuy xaar ci mobilisation. maa koy duma maa koy daan waa Yaram Aar di leen sant bu baax a baax xam nga man man toppewu ma nit leen mais si sérieux laa leen toppee gisuma promoteur bu leen gën a sérieux man bokk si ñu may liggéey ak ñoom quoi. maa ngi leen di sant bu baax ñu ngi jàppale mbër yu ndaw yi ñu ngi jàpp si côté billet yi ñu ngi jàpp si lépp waaw utiliser wuñu benn mbër kenn du ñoom kii nii gis boppam si waa yaaram Aar moo tax mu jël ma. ndax fii la bañoon. ah deux victoire laa amoon mu bañ maa jël. trois soxla day ñëw samay boole. kii dañuy woo dañuy woo comme ni ñu ko daan defee rek partie 6. ñëpp rek partie 6 des na yeneen jàkkaarloo lii présentation la rek présentation bi dañuy woo partie 6 parce que dañoo jóge si bis mu def si lu doy waar. def na ma signal lii présentation la rek des na yeneen jàkkaarloo. Aline Diop gars yi waa Kaaba. ah maam góor kan jëf jël sama baay faal bi ak waa. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf noonu la demee. xale këtëb këtëb waxal ma Matar suba teel. Birane Ndour gars yëpp ñu jënal ma ay billets yu baax ma préparé grand komba bi xam nga yaa ma gën a xam instant nii ñun suñu niveau romb na fii nii dañoo war a rassemblement. Eh, këtëb nañ ko dem seeti ñu laaj ko ba xam bu ma daanee booy bi dina bëre. donc ma dul daan loolay problème bi. këtëb jëf Khalil noonu la demee.